asalaamaaleykum mbokk internet Seneweb TV seneweb.com di leen jaajëfal bu baax tey nag ñu am euh, euh, gan bu yaañ di euh, Pathé Ciss comme ni ngeen ko xamee rek dañ koy bàyyi mu nuyoog ak mbokk internet yi laataa ñuy door ci waxtaan bi. <laughs> <laughs> waaw asalaamaaleykum mbokk internet Seneweb man Pathé Ciss maa leen di nuyu di leen ziar jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen masawu si tàngoor bi. dafa tàng. tàng la. <laughs> alors Pathé ñu nar a euh, waxtaanee euh, euh, d'abord ci sa ci sa ci sa parcours avant ñuy ñëw ci ci say performance si club bi Pathé dégg naa sa papa da daan la yóbbu jàpp sa loxo di la yóbbu <laughs> nan nga def amour sport bi nan la la duggee. waa. amul sport bi loolu c'était lu lu waroon am na si man. parce que boo juddoo si famille boo xamante ne da nga judd fekk ñëpp di di football. naay samay samay sœur sax dañ daan dañ daan fooyee football. nga judd fekk sa papa si football sa frère du jouer say sœur ji ko fooyee man c'était j'étais obligé aussi ma loolu noonu am si am si man. Mm-hmm. fan ak fan nga jaar ba ak si niveau bii tey. waaw man maa ngi commencé sama école football papa mi ngi tuddoon Jean Ndiaye. ñu doon entraîné terrain Colobane foofu la commencé yi ànd ak sama papa foofu noonu bi may nekk xale mu may comme ni nga wax mu may jàpp si loxoom di ma di ma yóbbu su ma yemee foofu noonu entraîné ak sama sama moroom yi parfois mu yëga ma si si grand yi noonu après ma jugee foofu noonu Tambara nekk foofu di entraîné jàmbaar ñu daan def ay ay tests. catégorie buy def 92 ba. 93 euh, dama daan dem di di assister seen test yi affaire yooyu noonu parfois su équipement manqué ñu ngi ko doon tuddee kii reste du monde. Mhm. ñu boole ma si ma dugg affaire yooyu noonu joué 80 test yooyu noonu ba sama promotion ñëw ma def test yi yàlla def ma dugg foofu noonu. Mhm. après sama sama formation fa laa ko fa laa ko yegalee. jàmbaar après jàmbaar si laa signé Portugal. sama mhm. premier contrat Madeira en 2000. fin 2016 waaye début 2017. Portugal foofu sa première intégration nga nga nekk xale signé foofu noonu euh, nan nga ko doon dundee période boobu. waaw période boobu noonu xawoon na xawoon na metti trop parce que c'était pas facile nga jógee sa dëkk dem dëkk boo xamante ni maîtriser woon ngi bi xamoo nit ñi fa nekk affaire yooyu noonu mais heureusement ba dama àndoon foofu ak sama j'avais signé avec deux deux amis. Nestor Mendy ak Assane Sylla que je salue de de passage maak ñoom ñoo fa euh, nekkandoo woon moo tax mu xawoon yomb tuuti si sunu côté ñu ñett ñëpp mais après côté langage yi métti na trop métti woon na parce que on savait pas parler le portugais mhm. du coup anglais bi lañ doon takkale takkale tuuti di di di gérer <laughs> mhm. après début bi métti na trop vraiment mais bu ñu dawalee quelque quelques mois ba deuxième partie saison bi si lañ mun naa si man boog si laa gën a adopté aussi si kii bi si niveau de vie bi championnat bi affaire yooyu noonu. après ça a pas été difficile de mon côté. après Portugal fan nga fan nga demaat. waaw Portugal foofu laa def fo ëkk boobu noonu un an laa fa def. Mhm. après saison bi si topp ñu abale ma beneen équipe Portugal. Mhm. Famalicão foofu noonu ñu doon joué deuxième division après ñu yéeg. Mhm. après ma jógee foofu si laa signé Espagne Fuenlabrada. deuxième division aussi. ma def foofu un an et demi après si laa signé Rayo. voilà club bi nga nekk actuellement euh, temps yi euh, weesu xawoon nga ci am ay ay jafe-jafe euh, nan la demee woon exactement. <laughs> waaw ay yooyu moom si mook football ñoo ñoo ànd quoi. Mhm. après voilà boo nekkee ci ci benn équipe ñu ne ci compte pour du duñu dañuy jéem a def le tout pour bañ la perte affaire yooyu noonu. retenir la. waaw. Mhm. après man. foofu noonu jaaruma fa pour euh, pour toog fa. Mhm. tremplin laa fa def jóge foofu noonu dem feneen fu fu gën a kawe. Mhm. après borom bi mayoon na ma loolu si mercato bii nii passé mercato hiver bi passé. Mhm. voilà après ñoom def nañ le tout pour euh, bañ ma bàyyi et ils ont ils ñu gisoon sa sa réaction aussi mu nekkoon lu la lu metti ba nga waral sax nga defoon ab post après lan nga sentir. waaye réaction boobu lu tax ma parce que loo xamante ni pour man c'était pas c'était pas normal de leur part parce que ñoom si loolu noonu amuñu woon luñ ci perte au contraire ñoom dañ ciy gagné man aussi ma gagné si. Mhm. parce que voilà man foog naa boo nekkee si équipe yow jour bi nga xamal leen ni que tu ne te sens pas bien ici que da nga bëgg a quitter nga xamal ko coach bi xamal ko président bi xamal ko directeur sportif bi après pour man ñoom seen seen rôle yow bi nga fa nekkee ba tey. tu as toujours complété li nga waroon def ak ñoom da ko da ko def saa bu ñu la def nga li nga war a entraînement yi toujours présent def li nga war a def mosoo jàggati benn règle club bi nga dem ba sentir too fa sa bopp. c'est normal nga bëgg c'est normal nga bëgg a man boo leen waxee loolu ñoom dañ la ko war a yombalal. Mm-hmm. après su fekkoon amoo amoo amoo ay ay proposition sax ñu ñu mën a wax yow yaa bëggoon forcer génn mais non proposition yi ñu woon foofu noonu. Mm-hmm. amoon na foofu noonu en plus ñoom li ñu doon xaar nga andil leen plus. nga mhm. andil leen plus boo xamante ni période boobu noonu il était pas nekkoon si si si si meilleur moment am. Mhm. nekkoon si meilleur moment parce que parfois coach bi da ko doon jëloo parfois du ko jëloo su ko dugalee. moom lay kiiwee génn temps de jeu bi mu bëggoon amu ko affaire yooyu noonu. Mhm. léegi après loolu man ma un jour ma waxtaan si ak coach bi mu ñëw mu laaj ma. genre mi ne daf ma dafa gis dama changer affaire noonu lan moo tax ndax dama am problème ak bi wala ak moom affaire yooyu ma ne ko non non amoo problème a yow amoo problème ak club bi. Mhm. mais juste sama situation moom ma neexul fii nii. Mhm. parce que voilà man je suis pas venu ici. tu ma ne ko je je suis pas venu ici pour euh, di toog si banc bi wala di jouer ay quinze minutes noonu. Mhm. man je veux continuer ma progression. te loolu pour ma am ko foog ma nekk si équipe boo xamante ni dama jouer régulièrement. di toog nii tey nga jouer suba doo jouer c'est pas c'est pas mon truc loolu taxuma fee ñëw affaire yooyu noonu. après ma ni ko nag yow say say say choix comprendre naa ko bu baax mënu ma la si wax dara. Mhm. mais li ma bëgg mooy je sais que dina am ay proposition mais bu taxawee yow ci parles avec le président. Mhm. ngeen xool nu ñu trouver solution ngeen libéré ma dem quoi. Mhm. noonu mi ne ma d' accord vas ñu dem ba si ba loolu jot. ñu nekk di di def lu leen neex jot proposition deux semaines avant nanguwuñu ubbi kii bi nanguwuñu tontu proposition boobu noonu. ba suñu dernier match bu ñuy joué contre Villarreal foofu noonu. mu yóbbu ma foofu mu woo ma mi ne ma ndax da nga bëgg a jouer wala bëggoo jouer. Mhm. may ko su ma bëgg woon du ma def voyage bi. ko mhm. su ma defee voyage bi parce que pour euh, pour jouer la pour aider équipe bi pour aider la yow aussi mais comme je te l'ai comme bu jeexee. bëgg naa nga bu ma match bi jeexee suba mooy dernier jour ko yi bëgg naa nga woo président nga wax ak moom ñu trouver solution ngeen libéré ma ma dem affaire yooyu noonu. Mhm. mu dugg si bureau bi toog il faisait vingt deux heures bi may njëkk signé premier kii papier yi il faisait vingt deux heures cinquante deux. Mhm. il restait huit minutes mu dem dugg si beneen bureau bi commencé tak tak tak papier affaire yooyu noonu génn xool ne oh du papier bii nii mu jug génn bureau bi. dem ñëwaat bi muy ñëwaat mi ngi doon def vingt deux heures cinquante mhm. mu duggaat xoolaat papier bi génnaat ne du mu dem dugg ñëwaat di laajte man kañ laa signé si club bi ma nekk mais président yow sérieux li ngay laajte nii kañ laa signé si club bi ngay laajte affaire le temps ñuy wax loolu après ñee woote mm-hmm. bi noonu la tombé à l'eau mm-hmm. après je plus rien faire ma nekk ay euh, moments yu difficile nan nga ko dundee moment yooyu waaw c'était pas facile moom c'était pas facile yombul woon parce que beneen état bu bu gën a am solo laa doon laa doon dépassé mm-hmm. mu doon mu mu mu doon ma yóbbu beneen beneen niveau te képp kuy joué loolu ngay loolu ngay ñaan à chaque fois ngay ngay kii si kaw. après voilà je me suis dit garaawul sottiwul peut-être nii la ko yàlla bëggee woon xëy na bu sotti woon du nekk loo xamante ni lu ma jig la affaire yooyu noonu. wala après ma dem sama gaale ñibbi xam ni que nii la ko borom bi bëggee woon ma sa ma koy sante bu baax baax a baax. donc mu nekk saison bu metti ci yow euh, mais actuellement est-ce que yeneen club ñu ngi lay courtiser. waaw loolu moom du du ñaax vraiment du ñaax vraiment. Mhm. après après sélection bi dinañ. ngeen am voilà d'ailleurs sax ngeen am match bu important yi ngeen war a jouer euh, surtout contre euh, Brésil nga xam ne euh, dina la permetre aussi yeneen recruteur man laa gis match boobu nan nga ko fas yéene aborder. waaw match boobu noonu comme tu as dit match la bu bu am solo match la boo xamante ni ñëpp dañ koy dañ koy seetaan affaire yoon c'est yoo xamante ni da si da ngay ñaan jouer si wane sa bopp voilà après ñu ngi ñaan borom bi ñu yegg si ak bismillahi rahmaani rahim ak euh, forme bu doy ñaan jouer si match bi après def si lu ñu war ndax match la yoo xamante ni képp kuy jouer ñaari genre match yooyu noonu ngay ngay ñaan jouer. Mm-hmm. parce que c'est des yoo xamante ni daf lay jox visibilité. ñëpp a seetaan daal yoo xamante ni doo si wane sa bopp après lu nekk mun na si mën na si am. en dehors du foot Pathé euh, lan mooy say say say passe-temps à part boo footballul ak yooyu noonu. <laughs> man <laughs> man su ma footballul surtout su ma nekkee vacances fii nii genre du may su ma yeewoo du ma sax am vacances parce que damay entraîner chaque jour midi laay entraîner su suma paree toog tuuti sangu ak sama gars yi ndékki affaire yooyu noonu. après dem sama sama gaale meer mhm. foofu laa toog presque euh, journée bi yëpp mhm. ba ay après timis ma génn dem si sama sama copain yi mhm. ñu ma daan nekkal affaire yooyu noonu toog foofu noonu nekk ak ñoom jàppisi affaire yooyu noonu après ambiance teg sa musique def def def yëfi booy Medina <laughs> loolu loolu mu si ñaax loolu mu si ñaax <laughs> loolu faa mu am si après voilà suma jugee foofu noonu su ma amee li may def ma dem defi ko su ma amee ñu may seeti ma dem seeti leen mhm. sinon ma dem dellu sama sama gaale continuer foofu noonu soirée bi ak samay samay copains. ok lan moo la gën a marqué ci sa <laughs> ma gën a marqué sama vie comme comme genre. lépp vie naturelle vie professionnelle. sa <laughs> question pièces yi mooy dóor yooyu waaye li ma gën a marqué sama <laughs> vie ñëwal rek ci lan moo la gën a marqué. <laughs> xaw xaw a dëgër lu gaaw marqué du bari de. waaye ah, dara marqué wu amul dara loo xam ne mus na la arrivé mu touché la wala yooyu noonu. Hmm. non non je pense pas. Hmm. amul benn anecdote boo ñu mën a raconter. ci football bi wala sama. sa sa vie normale. waaw waxal tamit. non sûrement dina am mais dama koy dama koy dama koy fàtte dina am du ñàkk moom. da koy fàtte ay anecdote moom du du ñàkk dama koy fàtte. waaw léegi naa yaay ambianceur équipe bi. fan fii nii. waaw non bàyyi loolu. lu ah. man de. naa yaay fii de. non man damay grillé rek <laughs> Euh, vie d'équipe bi nan ngeen koy dundee fii nii ak yéen avec euh, tes tes autres coéquipiers. groupe bi moom pour dire vrai il il bien gars yi am na déggoo déggalante nañ on se respecte loolu nga xamante ni moo moo gën a am solo si si groupe. quand y a le respect lépp lépp am na bu mhm. ñëpp respecté respecté groupe bi day dund groupe bi day day neex. Mhm. mais tey jii bu doon day am ñoo ne dañuy ñëw di jaay wala man la kii man la kii yooyu noonu xam nga boobaa doonul woon doonul woon ne parce que dina am ñoo xamante ne du ñu sentir seen bopp si groupe bi. Mhm. mais tey ñëpp dañoo ñëw wàccee seen bopp. tolloole seen bopp ak ñëpp jox ku nekk jox ku nekk ku ne jox moroomam euh, respect. loolu foog naa gën na tax lu a tax groupe bi gën a neex affaire yooyu noonu vraiment. say projet lan la. ah bii nag ci wax. non loolu dinañ dinañ si dinañ si si gën a wax dinañ si gën a wax dinañ si gën a dinañ si gën a yaatal beneen yoon tuuti rek la en dehors du foot xam nga tamit ñëpp xam nañ ni que footballeur nga mais en dehors du foot am nga yeneen projet quand même. a yaatal beneen yoon dañuy def beneen kii boo xamante ni du waxu football du waxu dara waxu projet lay doon. <laughs> xam da ngay wax si projet yëpp. voilà voilà. ah d' accord. mooy mooy mooy voilà donc ñu lay jaajëfal rek. donc di jaajëfal mbokk internet euh, Seneweb TV euh, seneweb point com donc euh, amaloon mbégte loolu toog waxtaan ak ki nga xam ne moo di l'international Pathé Ciss donc di ko bàyyi mu tàggoo ak internet yi. waa encore une fois di leen di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen. béggee di leen ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri di leen ñaanal lépp loo leen dugg borom bi taxaw leen si. voilà dooleel leen si ba lépp sotti. te mu nekk lu leen jik si merci indi bëgg bu baax a baax a baax. merci ñun aussi ñu lay souhaiter bonne chance. merci merci <laughs> merci beaucoup. waaw leen ñaanal aussi seen web. Mhm. jàmm ji gën a bari affaire bi gën a jëm si kaw. amiin amiin allah merci. à vous.